bésu tey bii di altine fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 jot nañu résultat yi ci mbas mi ñuy wax Covid 19 fii ci Sénégal ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-benn fukk ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak juróom-ñeent. mooy li nga xam ne moom lañuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñ bërëbu liggéeyukaay yi ñoo leen di topp te di leen di saytu juróom ci ñoom ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di fekk ci diiwaan yi benn ca Grand benn sa Diamniadio benn sa Fatick ñaar ca Touba téeméer ak ñett euh, ñi nga xam ne feebar nañu te doon ci lal hôpital yi bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jangoro ji wër nañu fukk ak benn cas grave nag la ñu am tey ñi nga xamante ne ñu ngi ci bërëbu sawetaas yi ci hôpital yi ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lali hôpital yi ci bésu tey bii euh, seen yaram mi ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko 2 mars ba léegi bi nga xamante ne ci la mbas mi dugg fii ci Sénégal ñu ngi toll ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ñi nga xamante ne ñoo am doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn wër nañu ñaar fukk ak juróom-benn génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne fi mu nekk ñu ngi leen di jox traitement bi ci lalu hôpital yi ñu ngi tollu ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn. ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi dolli di dooleel fajkat yi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci l'hôpital yi. ci centre de santé ak ñëpp ñi nga xamante ñu ngi leen di jàppaleen pour mun a daaneel mbas mi ñuy wax Covid 19. mu leen di gën a dooleel di leen di ñaan ñu gën a jàpp ci loolu mu ngi wax tamit askan wi ne bu ñu gisee li nga xamante ne moom la waa kër docteur di def ak ñëpp ñu leen di jàppale na ñu gën a ñoom tamit jàpp ci li ñuy wax prévention individuelle et collective maanaam mooy lépp loo xamante ne def nañu ko wala ñu ànd def ko. ngir mbas mi génn Sénégal ba faw maa ngi leen di gërëm di leen sant